sama doom lañuy rey rey bu ñaaw lañ ko reyee sama doom dafa jógee Toubacouta mu ñëw Ziguinchor mu indi ay bant la andi mu ñëw fii dafa ñëw bi juste néema deux fii la yegg néema deux mu tase ak benn euh, kii eaux et jigéen koo xam ne solul toni mu arrêté ko xale bi ne ko lan la mu ne lan nga indi mu nekko ko yow solo toni loo may arrêté kooku continuer di dem mu ne xale ji xale góor yi ñu nekk fi ñuy dawal jakataay mu ne dàkk leen kii xale góor yi ñu dàkk kooku ñu dàkk ko ba keeña jàppuñu ko kooku bàyyi taf-taf bi mu bàyyi mu wàcc ki taf-taf bi bu mu wàccee taf-taf bi muy daw tànk ñu ngi ko yóbbu sakkee sakkee ba karkee bi jóg ñu ñëw jàppal leen ñu de jàpp ko ñu dóor ko ay ay kii ay birig yi gél ay xeer ay kii banta yu mag la jël jël ñu dóor bopp bi ñu ñu rey xale bi. billaay maa ngi dund lu métti xale boobu la ñu yaakaar kër ga gis nga li ma li ma gisee sama jëkkër dafa gaañu ci maamal doom rakam gaañu rakaam ñoom ñett ñoo da gaañu ci benn kër benn année bi ay weer la ñu bàyyante gis nga xale boobu la ñu yaakaar ci kër ga fii la nekk si man ba mu takk jabaram fii. xale bi ne damay dellu ma dem toog fële parce que kër ga kenn nekku foofu eh? xale boobu boo ko reyee tey famille bi muy def boo gisee ñun ñuy jo bi lii la. ñu koy def mu baax mun na bi ñun ñaar kese benn benn doom bu góor muy am un an un mois ni si dina métti torop parce que rek mu si samedi bi mu ne maay dem Ziguinchor ay sept heures ma ne ko xaalis dépense bi mu ne ma may ñëw léegi léegi may ñëw léegi léegi boobu noonu moom mu dem.